yal na leen suñu moom sàmm yal na leen suñu moom aar yal na leen suñu moom seen jëf yal na leen suñu moom bay yéen yàgg yal na leen suñu moom may gu wér a mën nekk ci liggéey sëñ Tuubaa ñoo leen ko ñaanal bu baax ci baaxu sëñ Tuubaa ci barkeem ci ngëneelam ci dara jàmm amiin yàlla nga fi yàgg barke sëriñ Bassirou